Sëriñ Touba. barkeb Sëriñ Touba. barke Cheikh Modou Fadal. sëriñ bi nee na ñu ngi nuyu bokk yëpp. képp ku fi teew ñu ngi lay nuyu. ci turu suñu sëriñ. sëriñ Abul Baraka. ak ci turu jëwriñam. Cheikh Mamadou Bachir. mi nga xam ne moo yor kaddu kër gi. muy sëriñ Abdul Fatah. nee na sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñoom ñëpp ci bu baax. nuyu sëriñam. nee na moom itam mi ngi nuyu sëriñam. sëriñ Muntaxa Bachir. sëriñ Touba. yàlla na fi yàgg ca wér. ak njabootu sëriñ Touba gépp. ak taalib yëpp. ak bokk yëpp. ak jullit yëpp. sëriñ Abul Baraka wax na ne. mi ngi sant bokkam yëpp. yi mu bokkal sëñ Fallu. ak jëwriñam yi. ak sëtam yi ak sëtam yi. ak jarbaatam yi. bàyyiwul kenn. di xamle ne. bis ba mu jotee ndigal. bis ba mu jotee ndigal. ci sëriñ Muntaxa. ci sëriñ Muntaxa. jëm si ci moom mii. jëm si université bi ñuy liggéey. mu jox ko ndigal. moom itam mu jël ndigalam jox ko jëwriñam. Cheikh Mamadou Bachir. mu yi. mu woote lenn ci bokk yi. ñu daje. ñu daje. waxtaan. waxtaan. kenn ku nekk. kenn ku ci nekk. ñu bindu kayit. nga jox nangam. ne sëriñ bi nee na nga joxe nangam. ñi mu bokkal sëriñ Fallou. ak jawri yëpp. nekk ci kër gi yëpp. kenn desut. kenn desut. kenn ku nekk. na nga joxe nangam. na nga joxe nangam. sëriñ Bassirou mii ne. sëriñ Bassirou mii ne. góorgóorlu. nañ góorgóorlu. ba am ba am ñaar téeméeri million. ba am ñaar téeméeri million. booba lim boobu. booba lim boobu.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 bi ñu bindee ay bataaxal. kenn ku nekk. kenn la joxoon la waxoon. lañ la waxoon. joxe nga ko. joxe nga am na ñoo xam ne joxe nañ ba toftal ci leneen lu kopp. ngir xiir ci sëñ Fallou rek. ngir xiir ci sëñ Fallou rek. lépp sëñ bi moo ñaanaloon. loolu nag lépp nag sëñ Abo moo ñu ñaanaloon. Ngon Mbàkke yàlla na fi yàgg. bi ñu dajalee baagal. bi ñu dajalee baagal. am nañ am nañ muy ci ay loolu boo gisee moo di ñetti téeméeri millions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 ñaan ci barkeb Cheikh Amadou Fadal ñu yàgg ànd ak moom ñu yàgg ànd ak moom mu yàgg ànd ak Cheikh Mourtada Cheikh Mountakha ñu ànd liggéeyal Serigne Touba ñu ànd liggéeyal Serigne ñu liggéeyal Serigne Fallou ci moom nee na loolu mooy li nga xam ne moom la Serigne bi joxe ci ay kaddu ngir ñu jottali ko nee na mi ngi sant ñëpp. ginnaaw kaddu yooyu ci la fa mboolem kilifa yi bàyyeekoo ñu def benn convoi bu mag a mag bàyyeekoo ko ci kër Serigne Fallou gi ngir jëm ca daarul tansil fekk fa cheikh Mamadul Muntaxa Mbacke Bachir ndax jamono bi sax sëñ bi dafa fat woon nekk ci daaru tansil waaye moom moo leen woolu ca bërëb boobule ngir ñu jébbal ko li nga xam ne moo di ziar bi mu nekk ziar bu am solo ñu ànd teewlu xasida bismillahi fii niin ak daara yàllaaw sawi bi di fiiq yàllaaw yaa man lawoo amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma lil waad lidika ya allah wajatuka alyawma ya rahman murtadiyan fawsi bima situfi dunyaka ya allah أزاري مراسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليم يميني وقل بزال يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأنك bi kilifa yi agsee ci daarul tanzil ñu wàcc ñoom ñëpp àndandoo dugg ci biir fi nga xamante ni fi lañ waroon fekk Serigne Mountakha Mbacké Bachir bi mbooloo mi teewee nag at yi nga xam ne moom lañ dajale woon mu toll ci ñetti téeméeri million ak fukk ak ñett di jëy sun lépp ñu jébbal ko sëriñ bi muy addiya joo xam ne njabootu sëriñ Fallou moom lañ waajal ci université bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir moom la bëgg a taxawal ci bërëbu sell bi di tuubaa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 ni sëriñ Muntaxa jàppee kër Cheikh Mamadou Fadal ci kenn ku ci nekk nit ci ñun xam ne jàpp na leen. kilifa gu tedd gi Cheikh Mamadou Muntaxa xalifatu Cheikh al Xadim ataalallahu baqaakum fiina wa ayyadakum wa nasarakum bi barakati xadimil Mustafa noo ngi lay jottali am nuyoo bu bàyyikoo ci. Cheikh Mamadou Bassir moom Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ni moom la sëriñ bi jiital ci dafa jëf jëwriñam jot ay kàddu yu gàtt yu bàyyi ko ci moom mu jële ko ci sëriñ Abou Baraka moom Cheikh Mamadou Fadil di xalifaam sëñ Basiiru nee na mi ngi lay jottali kàddu yi sëñ Aboo muy kàddu yu gàtt mu ngi lay nuyu di la siyaare ci turu sëriñ Aboo Mbàkke moom sëriñ Fallilu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 sëriñ Jiili Mbàkke mi ngi fi ak Cheikh Ahmadou Lamine Baara sëriñ Moustapha Mbàkke Baara mi ngi fi di la nuyu it ci turu sëriñ sëriñ Fàllu yi nga xam ni ka cay seen kilifa mooy sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdul Karim ak sëriñ Abdul Ahad Mbàkke rakkam ak mboolem ñi nga xam ni ñooy seeti sëriñ Fàllu yi ci des te seeni waajur jiitu ak ñi fi nekk ak seeni waajur yàlla nañ yàgg ak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 muy bëccëg di ñaan nga àggale koog jàmm muy daara ji nga sos nga àggale koog jàmm ñu ànd koog yow ba mu àgg nga simb yeneen fiig téeméeri at sëñ Abo Ndeen mi ngi ñaan loolu di ko ànd ak njaboot suñu fàllu gépp te am na yaakaar ci ne suñu borom dana ko may ndax ni nga fi nga toll sëñ Fallou ak fi njabootu sëñ Fallou toll ci yow ci cofeel wax na ni itam mu ngi sant mboolem ñi nga xam ni ci sa dina ko leeral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 mooy topp ji ma am ci njabootu Cheikh Mouhamadou Fadel loolu sa jëf gi moom mënu fa mënu mënu amul ab moom su moom su moom su ji bëri yaay waaye nag sant naa ci bu baax ndax tolloon nag sama pëstéef ci Cheikh Mouhamadou Fadel yëmale wu ko fenn loolu rek yëg boobu rek moom lay yëg ci njaboot bi waaw loolu loolu foofu loolu rek daa ko mën a message sama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 dara desu ci loolu man moom la jàpp ne mooy jumtuwaayu euh, taalibe yooyu lañ ko lañ lañ yooyu mooy jumtuwaayu taalibe euh, yéene ji euh, mat na sëkk rafet na paste bi wér na wér na wér na cëng waaw yitte ji it mat na sëkk kon ñett yooyu moo moo moo moo moo moo ci la ci la liggéey ci la jëf jure ji ci la sosoo loolu yëg bu baax a baax a ko waxee woon rek ma xaw ma mooy tontu. Eh, lu ci tontu rek du weesuwut eh, weesuwut eh, gën a yees bii gën cee yeesal sama jaayante ci sëriñ bi. sama biir ak sama bitti sama tey ak sama ëllëg soxla moo dara lu bi.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 nee na jëfin wu ne am na fi. jëf ju rëy ju ne am na fi. jëf ju rëy ju ne am na fi. waaye ji moom. waaye ji moom. yaakaar naa ne moom ci ci lañ ko njëkk a déggee. waaye ji moom nee na yaakaar ne ci lañ ko njëkk a déggee. njëkk a gisee itam. ci lañ ko njëkk a gisee itam. waaye loolu alhamdulilah loolu moo tax nag ma ne alhamdulilah rabbil alamin yëg naa ne am naa tawfeex ci Mouhamadou Fadel. nee na loolu moo tax ma ne alhamdulilah rabbil alamin yëg na ne am na tawfeex ci Cheikh Mouhamadou Fadel. ndax ndax ndax fi mu àgg ci man ci ci naw gu ma ko naw. ci ci mboolem nit yàlla eh, rafet gu ma rafet njot ci moom eh, loolu eh, alhamdulilahi rabbil alamin xam naa ne tawfeex la ci man dañu tawfeex ju ma am la mën a tënkee wóor am na yaqin ci ne soppi soppi sëriñ bi la na moom daal nee na na ko ne fi mën a tënkee mooy xam na ne Cheikh Mouhamadou Fadal soppeeb sëriñ Touba la ginnaaw sëriñ bi nag so bëgg bëgg soxlu ma dara lu dul moom tey ëllëg sëriñ bi ci boppam moom la yàlla dogal moom moom moom rek moo ma doy moo ma doy sama bopp tey moo ma doy sama bopp ëllëg loolu nag moo tax ma bëgg Cheikh Maodo Fall. cofeel googu moo ko may lii mu am te cofeel googu di Cheikh Maodo Fall am ci Sëriñ